avec ce qui s'est passé, il y a eu un soulèvement populaire. L'armée en a profité un peu pour prendre le pouvoir. En Guinée, c'était pratiquement la même chose parce que les gens s'étaient révoltés. Pendant un certain temps, il y a eu beaucoup de morts. On a vu que le chef de l'opposition a été empêché de, de, de se mouvoir. Mm. Cellou Dalein a été réduit à faire des visioconférences de manière régulière pour un peu rester. Ah, euh, il a même disparu voilà. de la circulation. Pratiquement, ainsi, hein. pratiquement, mm. pratiquement. Bon, même si l'animation politique de son parti, l'UFDG, se faisait à travers donc l'Internet, mais cela montre à quel point il y avait véritablement une rupture de confiance entre les acteurs politiques en Guinée. Et cette gouvernance euh, malheureuse de, du président Condé, euh, on a pu le voir récemment, ces derniers jours, quand il était en vacances, les gens étaient en train de se dire, mais bon, attends, qui actuellement tient la barque Guinée Il y avait certes Mamadi Diané, le... Euh, ministre de la Défense chargé des affaires présidentielles qui assurait l'intérim. Mmh. Le premier ministre Kassori Fofana, dont on parlait de sa démission à plusieurs reprises, était aux abonnés absents. Il était certes revenu pour euh, enterrer sa fille. Prions pour que, à partir de là, les Guinéens puissent avoir véritablement une nouvelle page. Mmh. En tout cas, euh, une nouvelle et belle page à plus ouvrir. Sereine, plus sereine, plus sereine, parce que sérieusement, C'est un pays qui mérite beaucoup plus. On a parlé de la Guinée comme d'un scandale géologique. La Guinée, c'est un pays qui a euh, des ressources naturelles. Mais qui a des euh, ressources. La Guinée, normale. Un pays mais, riche. le disait, il n'y a pas très longtemps que la Guinée pouvait véritablement aller bousculer le Nigeria pour prendre la deuxième ou troisième place au niveau de la CEDEAO. Mm. Toujours, pour vous dire que c'est un pays qui a des bases assez solides, mais qui malheureusement pour défaut d'une gouvernance politique euh, responsable, ne peut pas encore émerger. Il ne faudrait pas que les militaires tombent dans les mêmes travers que d'autres qui les ont précédés dans d'autres pays et qu'ils puissent quand même accorder à euh, l'intelligence guinéenne, que ce soit les Guinéens de la diaspora, les Guinéens au niveau même de la Guinée, des cadres politiques qui sont en mesure de faire marcher le pays, que ces gens soient associés dans le cadre de forces Euh, pour qu'il y ait un dialogue inclusif très rapidement. Bon, attendons d'ici demain, comme je le disais, attendons de voir les réactions que, des chancelleries. Ce que cela va donner. Pour voir maintenant comment effectivement le pays va fonctionner. Vous voyez des images. qu'on pourrait dire euh, humiliante, pas soutenable, d'un président en oui. de ses forces spéciales. Oui. Et justement, euh, on a vu d'autres images aussi euh, de ce même président oui. Alpha Condé euh, déposé euh, par euh, l'armée et surtout par le commandant Mamadi Doumbia, que nous allons connaître dans un instant puisque Fatimata Diop nous a fait ou dressé le portrait, le parcours de l'homme. Avant cela, peut-être on va vous remercier, Abdou Karim Diak Diakhaté, je sais que vous avez également euh, euh d'autres euh, préoccupations et surtout d'autres occupations Absolument. concernant la situation euh, en Guinée, puisque vous êtes journaliste aussi euh, de ce pays ami, qui restera un ami aussi, on le dit, malgré euh, les sûr. divergences entre les deux chefs d'État. C'est quand même un, un, un, pays frère. Merci à vous, Abdou Karim. Merci, Ibrahim. Merci. Merci, merci également. Donc, ñu tënkaat ko li nga xam ne moom moo fi xew depuis suba ngeen xamee ko noonu ne situation bi nga xam ne moom moo xew foofu ca Guinée euh, ñu jàpp ni euh, président bi di Alpha Condé euh, daaneel nañu ko ñi ko daaneel nag bokk na ci koo xam ni moom moo ko jëloon def ko mu jiite lii di seeni force spéciale léegi dañuy dellu si ci ci wolof lañ koy njëkk a defee Fatimata Diop xamal nañu kan mooy euh, Mamadi euh, Doumbouya mi nga xam ne moom moo jiite euh, force spéciale yooyu nga xam ne ñoom ñoo wàccee kii di Alpha Condé ba yóbbu ko xamaguñ nag fan lañ ko yóbbu waaye gis nañ ko sànq moom Alpha Condé ci télévision yi gis nañ tamit waa R waa force boobu nga xam ni Doumbouya moo leen jiite dem ba ci RTG di radio télévision guinéenne pour joxe seen déclaration Fatoumata Diop kan mooy colonel wala commandant Mamadi Doumbouya Mamadi Doumbouya moom la ñuy présenté comme nouveau homme fort bu réewum Guinée Conakry mu daal di diriger coup d'état bu dimanche bi colonel Doumbouya moom nag di ab malinke boowoo ci région bu Kankan moom nag li mu affiché woon bokk na ci volonté yi ñu génn mu daal di autonomiser lii lee di rek groupement des forces spécialisées par rapport ak li ñeel ministère de la défense bi waaye lu nu mel nag ñi lee di farandool yu Alpha Condé yi rafetlu ko woon commandant Mamadi Doumbouya moom nag nekk ancien légionnaire militaire bu armée française dañu ko woowoon ca réewum Guinée ngir mu ñëw daal di nekk ci bopp groupement des forces spéciales ñu taxawaloon ko ci atum 2018 ñetti at lañ ci teg moom nag mu bëgg lile di rek indépendance am officier breveté bu école de guerre mu daal di am nag expérience fukki at ak juróom ci wàllu militaire waaye tam ci ay mission opérationnelle yoo xamante ne jot na koo def ci Afghanistan Côte d'Ivoire Djibouti wala sax République centrafricaine ak i tamit protection rapprochée ca Israël Royaume-Uni ba ci sax Guinée waaye nag moom mii di commandant Mamadi Doumbouya accomplir na nag ay formation spécialiste ci wàllu protection opérationnelle ca académie bu sécurité internationale ba nekk ca Israël cours de formation ci wàllu commandement unité ca école d'application infanterie bu Sénégal di EAI mu mel ni tey jii moom moo dirigé coup d'état bi fa réewum Guinée daal di teg loxo njiitu réew ma di président Alpha Condé ginnaaw gi nag ba mu euh, saytuwaatee constitution bi ñu tabbaat sàkku ci ñetteelu mandat ci élection présidentielle yu fukki fan ak juróom-ñett ci weeru octobre ci atum 2020 yi ñu génn nga xamante ne nag ci violence bu méttee méttee jaajëf euh, euh, Fatoumata Diop euh, ci xam xamal lañu ak kooku nga xam ne moom mooy colonel Mamadi Doumbia nga xam ni moom nag moom moo jiite woon ñii di force spéciale yooyu nga xam ne tey ñoom ñoo daaneel kii di Alpha Condé situation bi nag ba léegi am na ci lu bari lu lëndëm foofee ci Guinée Conakry gis nañu yenn ci ay vidéo yoo xam ni foofee ci Conakry ak lu ko wër am na ay nit ñoo xam ñu ngay manifester pour wane daal seen ànd ak li nga xam ne def nañu ko mooy daaneel bi ñu daaneel président. bi di Alpha Condé amaguñu nag réaction officielle yu autorité euh, yu ci mel ni yu CEDEAO wala Union africaine wala ca Europe euh, ñii di waa France wala ay partenaires yu ci mel ni États-Unis wala Russie euh, amaguñu tamit fii ci réew yu mel ni Sénégal Guinée Bissau ak lu ko wër ci ay réaction muy ci Twitter niñ ko baaxoo di def wala ci yenn ci ay messages ci autorités yi donte ñu bokk par exemple ci opposition bi fii ci Sénégal ñu ngi euh, réagir euh, ñu bari ñoo xam daal euh, ñu ngi ci yëkkati kàddu gis nañu sànq li nga xam ne moom la ancien premier ministre bi di Abdoul Mbaye di doon wax gis nañ tamit ku ci mel ni Thierno Alassane Sall également ñu ne ci réaction am na nag xibaar bu ñu xamal xam ñu nag ndax lu taxaw la ku ci mel ni Assane Diouf ñu jàpp ko ndax doon def benn direct. di rafetlu lu xew fële ca Guinée waaye loolu tamit daañu ko euh, gën a topp ngir xam euh, fu muy mujjee mais jàppale daal ni loolu moom mooy situation bi xew ca Guinée ñu ngi koy topp euh, pour les auditeurs de Zik FM ak téléspectateurs yu Sen TV à travers li nga xam ne tamit suñuy plateforme ci des médias xam naa dañu koy tëjagum ba leneen lu xamee ni lu yees la lu ci am incha allah euh, ni ñu ko baaxoo def nag euh, euh, premier informé donc ñu jox leen ko premier servi yéen ñi auditeurs yu Zik FM ak téléspectateurs yu Sen TV kon dañuy jaajëfal ñi fare woon ñëpp ci wàllu régie bi ak ci wàllu technique ci Sen TV ak ci Zik FM ku lim jum nag waaye ci njiitalul Chimar Diop Mame Sidi Euh, ñoom ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi woon foofu ci wàllu woowu euh, waaye tamit euh, ci wàllug rédaction bi Yunusa Niamala Sane Fatimata Diop ak ñeneen ñi ñu ci toftal Mamadou Jean Diallo entre autres rendez-vous donc est pris pour l'information bien entendu ce sera un peu plus tard sur Zik FM et sur Sen TV excellent après-midi à toutes et à